maa ngi lay digal ne la gisaane gi yu ni mel bu mu ci mënti doon jullit na ko moytu boo yore sa internet di seetaan ba àgg ci benn njabarkat bu ñu invité muy wax lu ñëwagul puusal nga dem zappe ko parce que danger bi nar na laa dugal ci lu yent bi tere seetaan bi nga ko seetaan muy wax nga commencé douter dëgg la wala du dëgg mooy 40 jours moom piine nañ la ko dootoo julli mu nangu benn portable ci sa loxo nga nar cee ñàkkee 40 jours julli daf ko jaar kon boo tee gis ku ñuy tendre micro làmb ji kuy daan wala ñaar ñiy sëy ndax sëy bi dana dem wala sëy bi du dem ñaar ñiy ànd ndax Macky Sall dana gañe wala du gañe neel awuzu billahi min seytaan nga romb dem feneen bis boo toogee nag ngëm gi àgg ci nga mën di ko wax naan diw nee na dina nangam dina nangam yow moom génn nga ci daairatu islam dama nga waxaat ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah mbokk boo bëggee xam gisaanekat ak njabarkat ñooy ñan ay mbir ngi nii ngi la koy jox juróom benn mbir bi ci jiitu bo ñewé ci nit mu laaj le sa tour ak sa tour yaay jógal nga lem sa bagage dem loolu la islam wax mu laaj le sa tour wala sa tour yaay jógal nga dem njabar kat la gisane kat la wala nga ñëw mu wax la sa tour wax la sa tour wayjur te waxo ko ci dara jógal dem xam-xamam àggu ci ay jinne ñoy wax ak mom yastamil bil jinn ndax xam-xam àggul ci nga xol ma rek xam nan la tuddu xam-xam àggu ci sama yaay nan la tudd kon boo ñëwee da lay jéem a meeb di la wax nan nga tudd nee ko kon salaamaaleykum maa ngi dem beneen bi su la laajee dara lu bokk ci yow sa daggitu yére walla sa daggitu dàll walla su des ci sa kawar njabarkat la baal mu dem su fekkee daf laa reyloo nag moo xam ginaar la wala picc la wala lenn la wala mu tuurloo la deret baal njabarkat la walla mu jox la téere bu ñu bind bind yi ñu def ci ay xaatim ay xawaatim ay karo moo xam musallas la moo xam musaddas la moo xam musabbaa la yooyu mu jox la ko nga gis ni dañ cee def ay chiffre bind alquran ba pare def ci ay chiffre chiffre yooyu ay tur yu ñu tiidaat la ñoom xam nañ ko xam nañu li may wax léegi dañuy bëgg a bind turu alxaaji buñ ko bindee ñu feeñ ñu naa kon nañu def alif 1 la laam 30 la xaa la nangam nangam dóor ko fa chiffre yi ngay gis ñu koy bind loolu mooy aynu sixr ci loo ko gis bu ko jëfandikoo soo demee ci nit mu jox la ko bu dee saafara bu ko jëfandikoo bu dee looy takk la dawal musiba la ndax yonent bi nee na ku takk gàllaaj ku takk gàllaaj bokkaale nga wala mu digal la nga génne sarax sarax boo xam ne da nga koy jox ku nangam maanaam ne la sarax bii jox ko kuy wala sarax bii jigéen rek nga ko mën a jox mënoo koo jox góor wala sarax bii góor rek nga ko war a jox mënoo koo jox jigéen wala da ngay ñëw ba ci teen tibbal suufu jàkka suufu teen suufu jumaa gis nga dañ leen di dofloo